mbokk yi dal leen ak jàmm Ndella Madior Diouf jamono bii nii mu ngi ci guddi bu gët setagul gannaaw pouponnière boo xamante ni découvrir nañ ko ba jël ko teg ko loxo jàpp ña fa doon nekk fekk ñu fa kenn ay traces lañ fa gis wane kat fii amoon na ay xale yoo xamante ni ñu ngi fi ko fekk moom nag Ndella Madior Diouf bu ñu sukkandikoo ci dëkkandoo ya nga xamante ni ñoo fa nekk nee nañu kër googu kat fa ràññee ay jigéen wérul daan fa yow bu ñu amee doom daal di dem bàyyi fa xale yi donte nag alkaati yi fekk ñu fa kenn taxul ni que nag jamono bii nii bu nañ ak ab lànket ngir wër ña fa nekkoon daal ana fan la ñu dem làkkatu ji mbirum pépinière bi nag moo tax moom Ndella Madior Diouf ak ñi nga xamante ni dañ ko doon liggéeyal ba tey jii daal dañuy dese ni ci ay loxo yoon ci ay enquête ñu ngi sax xamal ni que xale yi jamono bii nii ñu ngi leen yóbbu ci hôpitaux yi nekk ci ngir seen wér-gu-yaram gën a mën a nekkaat na mu meloon ndax ñoom bu ñu sukkandikoo seen yaram daf feebal am na sax koo xamante ni génn àdduna béewam mu ngi ca morgue ba ñu wax ci beneen mbir boo xamante ni jamono bii nii mu ngi lëmbee Ndakaaru muy sëriñ daara bi nga xamante ni mu nga dëkk ci Kër Massar moom nag juróom-ñeent ci ay ndongom lañ ko wax la ñoom la doon tëddee waral nag chef de quartier bi daal di génn wax moom sax bala ñoo sori rek dañ leen di bàyyi ngeen diglu yenn ci ay kàddoom. paaloka fekku ko ci moom ñëwul percent wu dama koy dégg di ko dégg ba ay dëkkandoo di ma ko dénoncé ngir ay bruit yu muy def guddi deux heures jëm trois heures de matin wi lay def boo xam ne dañuy lakk kenn xamul li ñuy lakk du ay séeréer du ay olof bon ay soose wala yu demee noonu daal wala ay pol ba ay dëkkandoo yu yu mu seen dëgg dëgg dëgg dëgg am sax malaat bu leen jege kooku moo njëkk a ñëw dénoncé fii na ma délégué man de damaa wax dëgg yàlla dafa yónni doomam ne man daal dama bëgg nga wax ne délégué daara bi sa soog ñun daal vraiment jàngale arxulaan baax na mais heure bi ñu koy def fekkee ne dañuy jàngale ndax ay yuuxu rek lay dégg tey ay làkk la nuy làkk du ma xam lu nuy wax deux heures jëm trois heures du ñu nelaw sama garab yi may naan bu ma ko naanee sax du ma nelaw ngir ñoom am na fi ñuy xëy quatre heures de matin aussi ñu ngi jooytu wax dëgg yàlla ñi dañ leen di dérange ndax dañuy teel a jóg te ñi moom amuñu nelaw. mi ngi leen mu nekk yenn ci kàddu yoo xamante ni moom seen daara bi échangé na ko ak chef de quartier bi waaye nag yooyu yuuxu moo waral sax ba mbiram daal di feeñ ndax ci benn xale daal di génn wax ko wax ko loo waral nag ñu dem ba police. daal di koy wax alkaati yi loolee moo mujj àgg ci ay loxo yoon moom jamono bii sax mu ngi ñu téye waaye moom séddukat bi am na ay mbokk sëriñam yoo xamante ni taxaw nañ teemu ne kat dañ koy wutal avocat bu dee moo def ñu xam bu dee def itam a xam ni daal dañ ko koo tuumaloon dong waaye jamono bii nag du kenn koo xamante ni mën na dugg ca boobu internat waxtaan ak xale yi ndax jamono bi daal dañ ko tëj ku fa dugg xale ya fa des dañuy naan mënoo dugg gis waa daara ji wax rek ci mbirum jamono bii nag xale yi ñu ngi jël mag ñi bëgg leen génnee ci arène bi loolu leen la Reug Reug def keroog décembre gannaaw boole bi nga xamante ni boole woon nañ ko ak Bombardier ji diggu gu mag bi moom Reug Reug daf ko daal di woon dooleem daal di koy daan waral nag pare lamb di jeex mu ne nañ ko jox ay moromam mu ne ñooñu ko ñaari yoon nekk naa ko fi roi des arènes moom Bombardier eh, kàddu yi rek la daal di yëkkati. làmb dama la bëggal làmb daf ma bëggal mootuma naqar mootuma si am naqar sant rek moom moo war su ma amee. sant suñu gàncax mu doon yi mu nag moo waral jamono bii nii ña nga xamante ni ñoo bootu ci ginnaaw Reug Reug ne Reug Reug daal lañ ko jox ay moroomam taxaw temm ne ku daan Modou ak. Boy Niang nañ ko jox doomu caaro ji nga xamante ni le 24 décembre wane na boppam ci kanamu Bombardier daal di koy daal conseil constitutionnel euh, weekend bi daf ko daal di prolongé ngir dimbali candidat yi wala seen i mandataire daal di ñëw euh, déposé seen i ay dossier waral nag ñenn ci da nga xamante ni ñoom ñoo représenté ay parti daal di yëkkati ay kàddu euh, di ko rafetlu bu baax a baax baax su fekkoon ne dañu ne dañuy décaler dépôt bi wala date limite de dépôt bi dañ koy décaler ba biir semaine bi dafa dafay dafay indi décalage ci calendrier républicain bi ci processus électoral bi Euh, donc loolu nekk na loo xam ne nii lu am solo la baax na euh, bésu week-end bi ak jour de férié ñu ubbi pour recevoir parti yi nga xam ne nii bëgg nañ wala coalition yi nga xam ne nii bëgg nañ candidat yi ci élection yi di ñëw. mbir la boo xamante ne élection présidentielle la du ay caaxaan te cinq ans lay am par c'est par cinq ans lay am benn yoon donc le fait que ñoom ñu liggéey benn week-end prolongé dañ koy rafetlu bu baax parce que dina. permettre à tous les candidats pare seen candidature dossier ñëw déposer ko ci dalul. ma ne booy liggéey doo reposer wu il faut booy liggéey nga mën am jot pour reposer puisque c'est prévu même par la loi. waaye euh, administration bi ci li ñu xam euh, li ñuy liggéey bëriwul. waaye loolu xam na wax nañ ci bàyyi xel xool nu ñu ko gën mën a aménager ba nga xam ne nii euh, bés yu mel nii ñu ñu di ko liggéey parfois. bu ñu foo duggee def nañu moins d'une heure. waaw salle d'attente bi moo yàggoon mais boo xasee ba dugg tu fais moins d'une def nañ li ñu war a def par rapport ak dépôt candidature bi lépp lu nekkoon ay pièces liggéey nañ ci liggéey bu mucc ay lépp lu nekkoon aussi lu ñu loi bi santaane pour ñu jëmmal candidature bi jëmmal nañ. mu ngi noonu yenn ci mandataires yi kàddu yooyu lañ yëkkati di leen fàttali rek tey jii di le 26 le dépôt yi war a jeex bu wi jotee ci jamono boobu nag Sénégal déggu nañ ñu toll ci. ñaari téeméeri nit bëgg a nekk candidat ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo nag jamono bii nii fanweeri candidat ak ñetti ret ñoom ñoo déposé gum euh, seenu candidature foofee ca conseil euh, constitutionnel des nag mooy xaar ana ñan la ñuy daal di nangu seenu candidature wala déet candidature yu Ousmane Sonko bi nga xamante ni jamono bii ñu bëri ñu ngi koy xaarandi bu ñu sukkandikoo ci ayib dafee moom daal dinay déposé li nga xamante ni moom moo di ay dossier am waaye daf ko def en toute transparence bu ñu sukkandikoo ci yenn yéene kaay loole nag mel ni dafa daal di rëcc ci taskatu xabaar yi nga xamante ni bis bu nekk danañ taxaw buntu conseil constitutionnel ngir xool ana yan candidat ñoom ñoo daal di déposé seeni ay dossier ay defe nag mu ko daal di xamale démb ci guddi diiru 23 heures ci benn site de la place kon nag jamono bi nii candidature Ousmane Sonko jàppale ni daal nañ koy déposé foofee ca conseil constitutionnel. ñu tëjee ko ak mbirum Aliou Sall di rakk ci njiitu réew mi président Macky Sall moom nag ci ab entretien bi nga xamante ne amoon na ko ak suñu mbokk journaliste la mu xam ne rek moo di dinañ ko fi lu nekk wax nañ ko fi lu nekk waaye itam loolu tax na itam mu lu bëree bëri ci turam waaye taxul ni ko daal leneen mën na wax ni daal moom bale na ak moom Aliou Sall ñu déglu ko ci benn boo xamante ne amaloon na ko. xam nga Ousmane Sonko am na huit chefs d'accusation li gënoon yomb bu fekkoon ne état mun na imposer justice calendrier dañ koy woo léegi suñ ko mënee daan ñu daan ko defe naa quand même kaawu Sonko moo gën a diis kaawu Barthélémy Dias bi nga xam ne du candidat. ak tournée mi yëpp biir Sénégal du de parrainages citoyens moo ba muy am recours. ci ay parrainage député xam nga quand même bu fekkee juróom benn weer saa yu ñu yeewoo tudd sa tur bi ne yaa jël gaz bi jël nga six mille milliards xam nga loolu sax nit ñi parfois dañuy ànd ak euphorie ba duñu ànd ak xel bu dal waaye xam nga dafa am façon accusation yoo xam ne soo ko déggee rek da war a dute nuyu nañ ma nag bu baax au plan de ma moralité de dignité et de waaye tey jii Euh, damay am dépassement bale àq waaye nag tourner la page. mbokk yi li mu gënoon fës tey ci xibaar yi di leen jox di dégg suba ak jàmm jërë ngeen jëf.